bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk jullit yi noo ngi ne amul kenn a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhaanahu wa di seede ne moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu di jaamam di ndawam di ko ñaanal yal na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem ak muccam yàgga wàcc ci kawam moom ak i saabaam ak waa këram ak mboolem ñi jaar ci ginnaawam di rafetal ba ila yawmi diin di dellu si ci jotaay yi ñu amoon di leeral téere bu màgg bi di thalathati al usul di ñetti cosaan yi bu cheikh al islaam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala si jotaay bi weesu gannaaw ba ñu duggee ci ñaareelu cosaan bi di xam gi jaam bi xam diineem ñu waxoon ne diine joojee ci ñetti martaba la toll ñu jëkkee woon martaba bu njëkk bi di lislaam ñu xamoon ne lislaam juróomi ponk la di seede gi jaam bi di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhaanahu wa taala seede it ne yàlla subhaanahu wa taala moom moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa mu di jaamam ñaareel ba di taxawal julli ñetteel ba di joxe azaka ñeenteel ba di woor weeru koor juróomeel ba di aji makka juróomi ponk yooyee borom téere bi doon ci indi ay tegtal benn bu ci nekk ay tegtalam ci téere borom bi subhanahu wa taala di alquran ak waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu jeexaloon yi aju ci baati seede yi di weetal yàlla subhanahu wa taala ak yónni gi yàlla yónni yenente bi ay tegtalam ak la muy wundu ak la muy waral ci jaam bi bindu tey bi boroom téere bi di woy li wax ni wa dalilu lsolaati walzaka wa tafsiri ltawxid qawluhu taala wama umiruu illa liyacbudu allaha muxlisina lahu ddiina xunafa wa yuqimu alsolata wa yu'tu alzaka wa dalika diinu alqayima wa dalilu lsiyaam يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين loolu moo di bindu tey bi kon ñaareelu ponk ci ponki lislaam yi mooy julli julli mooy ñaareeli ponki lislaam azaka di ñetteel ba joxe azaka mooy ñetteeli ponki lislaam lii di julli ak joxe azaka nag saa su ne dañ leen di lëkkale ci alquran yàlla subhanahu wa taala di leen lëkkale lu bare bare bare bari ci alquran alkarim comme Eh, ni ko borom téere bi indee ci tegtal bi eh, wa yuqimu salaata wa yu'tu zaka ak ay yu baree di ko di ko lëkkale lii di taxawal julli ak joxe azaka looloo waral kadalika abubakar siddiq radiallahu taala anhu waxoon ni wallahi wallahi la uqaatilanna man farraqa bayna alsalaati wa zaka ba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génne àdduna am si nit ñi ñu deltu ginnaaw bañ a jooxeeti azaka abubakar siddiq dafa taxaw temm waat ci yàlla subhanahu wa ne dinaa xeex ak képp kuy tàqale diggante julli taxawal julli ak joxe azaka mënuñoo tàqalikoo benn bu si nekk ponk la si lislaam loole dafay dellu di dëggal lañu waxoon ne ponk yi ñoom li tax ñu tuddee ko ponk ne pilier la ci diine maanaam mënta ñàkk nit ki du taxawal yenn ponk yi di màbb yeneen ya faw wu jullit bi dafay taxawal mbooleem ponki lislaam yi ba tax na lii di taxawal julli ak joxe azaka ñaari ponk la yu màgg si diine kenn mënta taqali seen diggante Abu Bakr daan waat ne dinaa xeexak ak dinaa jàmmarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a tàqale diggante julli ak joxe li nga xam ne mooy azaka azaka àq boo xam ne yàlla subhanahu wa moo ko waral ci alal ba bu alal ji tollee fa mu war a toll ci nisaab dañuy wax boroomam ne ko ah nangam danga ko see war a génne jox ko ña ko yeeyoo yàlla subhanahu wa taala tudd leen ci alquran dinañ ci ñëw aay bi nga xam ne borom téere bi moom la tegtaloo si ñaari mbir yu mag yi di eh, taxawal julli ak joxe azaka ak li nga xam ne nee mooy tafsir tawxid ba léegi aaya bi dinañ ci jëlee firi li nga xam ne mooy wéetal yàlla subhanahu wa te romboon nañ ko waaye saa su ne yàlla subhanahu wa taala di feddali mbir bu màgg mi di tawxiid di wéetal yàlla subhanahu wa taala balaa julli balaa joxe azaka balaa dara loolee dafa war a dafa war a taxaw ci xolu jullit bi ba na aaya bi la mu làmboo sa jiitu mooy firi lu màgg loolee di tawxiid yàlla subhanahu wa taala wax ni wa umiru illa li yacbudu allaha muxlisina lahu diin te loolee mooy firi li nga xam ne mooy tawxiid loolee la si borom téere bi jublu yàlla subhanahu ne ñoom day digaluñ leen lu dul ñu jaamu yàlla subhanahu wa kese sellal ko ak jaamu sellal ko ak jaamu foofee ak diin lam fay firi mooy ak jaamu maanaam ñoom mbindeef yi digaluñ leen lu ñu jaamu yàlla subhaanahu wa sellal ko ak jaamu nag jaamu rek taxul ñuy wax waaye jaamu gi faw mu sell nekkal yàlla subhaanahu wa kese bañ ko see bokkaale ak dara wala kenn wala lenn ñu teg sa nag wa yuqiimu salaata wa yu'tu zaka buñ sa jógee nag taxawal lii nga xam ne moom mooy nga xam ne moom mooy julli taxawal julli saa su yàlla subhanahu wa taala ci alquran baat boobee lay jëfandikoo maanaam jubluwuñu rek nit ki di julli waaye taxawal julli lañu wax yàlla subhanahu wa waxul ñuy julli rek waaye wa yuqimu salaa ñuy taxawal julli taxawal julli lañ sa jublu mboolem lu julli googu laaj boroomam daf koy respecté taxawal ko ci ay ponkam ak i wareefam ak lépp loo xam ne mooy tax julli googu ñu tuddee ko julli boroomam daf koy respecté ci ay waxtoom joxe ko ni nga xam ne noonee la ko yàlla subhanahu wa taala digle noonee la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loole li tuddee taxawal julli bu fekkee loola amul tax loole kenn du ko tuddee julli julli bu ci ay ponkam génnee walla ka koy taxawal sàggane ay ponkam e, di ko jalgati walla ay waxtoom walla lépp loo xam ne mooy tax julli googu nekk julli kenn dootu ko tuddee julli loolu tax waaja bi mu duggee ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di julli daldi këpp këppal daal di ñëw nuyu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi eh, sa julli ga àndu dal yenente bi sallallahu alayhi wa dane ko irji fa solli fa innaka lam tusolli xadis baa nga ak muslim xadis abi hurayra koy tudde xadis musi solaata waa xam ne moo julli woon te julli ga lool gaawtu Euh, taxawalu li nga xam ne mooy ponk ya ba mu ñëwee yenent bi sallallahu alayhi dana ko dellul nga julli ndax julli woo foofee dana ko julli woo te waa ji booy xool si li feeñ taxawal na li nga xam ne mooy maanaam li feeñ ci démonstration yi si julli waaye sa dëgg-dëgg julliwul moo tax mu ne ko irji fa solli fa innaka lam tusolli kon li tax ñu naan taxawal julli comme ni ko cheikh Salih ibni Fawzan xafidahu llahu taala di waxee mooy wa yuqimu alsolaa wala takunu ida ataa biha kama amara allahu subhanahu wa taala ni ko yàlla subhanahu wa moo tax ñu naan taxawal julli moo tax mu ne <clears throat> laysa maqsudan surata solaa jubluwuñ si rek maanaam nit ki di këpp-këppal ni taxawal li ñu tuddee li feeñ rek si julli al qiyaam wa rukuu wa sujud wa julus faqat nee na déedéet bal al maqsuud an yu'ta biha kama shara'a allahu subhanahu wa ta'ala mustawfiyatan li kulli mutatallabaatiha ash-shar'iyya waaye lañ sa jublu mooy nit ki taxawal julli matal lépp loo xam ne moom lañ sa sàkku ci julli googee sharia sàkku ko ci yow si ay ponkam ak i chartam ak i wareefam ak i waxtoom nga mottali loolee lépp defee ko ni ko yàlla subhanahu wa taala diglee waaye ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngalee loolee lañ jublu ci taxawal julli kon yàlla subhanahu wa taala ne wa yuqimu salaa wa yu'tu zakaa ñetteelu ponk ba di joxe azaka ñuy taxawal julli di joxe li nga xam ne moom mooy azaka comme niñ ko junjee sànq azaka di ab àq boo xam ne yàlla subhanahu wa warlul na ko si alalu euh, jullit bi bu fekkee alalam toll na fenn fi ñu koy tuddee nisaab ñu ne ko sa alal ji bu tollee foofee day am na wàll woo si génne am ñu ko moom yàlla tudd leen sa alquran nga war leen koo jox ba mu waxee innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiin wal aamiliina alayha wal muallafati quluubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiin wa fi sabiilillahi wa ibni sabiil yàlla ne fariidatan min allah lu yàlla subhaanahu wa taala farataal la wallahu alimun hakim kon yàlla subhanahu wa taala lim ñi nga xam ne ñoom ñoo yeeyoo azaka ñoo ko moom di way ñàkki ak miskin yi ak ña say li ak eh, liggéey ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee al muallafa qulubuhum ñi nga xam ne ñoo dugg si lislaam ñu bëgg leen saa téye eh, jox leen dara si azaka ngir ñu seen xel mën a dal ñu mën a toog ak ñi nga xam ne ñooy alxaarimiin eh, di ñi nga xam ne dañoo yori ay bor ak si yoon yàlla subhanahu wa taala te mooy jihaad kadalika Euh, ñooñee ñooy juróom-ñett ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala lim na leen ñu war leen jox azaka nit ki du génne alalam ji di ko jox ko ku ku mu neex waaye daf saa war a euh, xool ñi nga xam ne ñoom la yàlla subhanahu wa wax ñu jox leen ko kon alal ji azaka ji say génn àqub yàlla la subhanahu wa taala àqub lislaam la nga war koo génne jox ko ña nga ko war a jox illa bi xaqiha kon loolee àq la bu la war farida la comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee farata la ponk la ci lislaam loolu tax yàlla subhanahu wa taala wax ni wa yuqimu salaa wa yu'tu zaka comme ni ko waxee woon sànq yàlla subhanahu wa taala di ko lëkkale lu bare bare bare bare ci alquran lii nga xam ne moom mooy euh, taxawal julli ak joxe azaka am na ay tegtal yu bare bare bare ci alquran ak sunna borom téere bi doyloo si eh, tegtal boobee kon si aaya boobee tegtal moo nga sa si ponk bu mag bi di julli ak ponk bu mag bi di joxe azaka ñeenteelu ponk ba di koor borom téere bi indi si tegtal fa yàlla subhanahu wa taala di wax ni yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yéen ñi gëm yàlla yàlla subhanahu wa taala moo farataal koor ci yéen comme nañ ko farataale woon sa ñaleen fi jiitu woon kutiba foofee lam fay firi mooy furida eh, farataal nañ ci yéen koor comme ni ko yàlla subhanahu wa taala farataaleen farataaloon ci ña fi jiitu woon kon si lañuy ñuy déggee ne lii di koor farata bal ponk la ci lislaam comme niñ ko euh, waxee woon si xadiis ibn Umar bi weesu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla euh, dafa taxawal li nga xam ne mooy lislaam dañ koo tabax buniya lislaamu ala xams dañ koo tabax si juróomi ponk kon lii di koor ponk la ci lislaam yàlla subhanahu wa taala farataal ko wa mu waxaatoon man shahida minkum shahra falya somu képp ku ko fekke si yéen teewe ko na ko woor ñu gis ne koor kon lu war jullit bi la comme ni ko yàlla subhanahu wa waxee fii ya ayyuha alladina amanu ñim ko adressé mooy ñi gëm yàlla kon ki gëmul yàlla kon waxuñu ko waaye jullit bi ab jullit majeur ànd ak xelam tukkiwul feebarul amul benn ngant ci ngant yi nga xam ne moom mooy wàcce koor ci jaam bi ci jullit bi kookee eh, woor weeru koor war na ko yàlla subhanahu wa taala eh, farataal ko sunu kaw ne laallakum tattaquun ngir ngeen mën see jëre nga xam ne moom mooy ragal yàlla loolee di ak xerañte goo xam ne yàlla subhanahu wa taala def na ko ci koor koor dafay eh, setal boroomam daf koy sàmm def si moom li nga xam ne moom mooy ragal yàlla subhanahu wa taala daf koy tàggat si wot wottu gim doon wotu si weeru koor mboolem mbir yi nga xam ne dafay dogloo nit waaye wottu gi muy wottu bàkkaar yi mu nekk si formation boobu ba koor gi jeex loole dafa war a def si moom ah ragal yàlla subhanahu wa ndax noonee mu doon euh, sàmmee boppam si koor gi te xam ne yàlla ko ko digal amul kenn ku ko mën a woorloo ku yàlla subhanahu wa muy sàmm boppam si lépp loo xam ne nii ay mooy yàlla la ak yu yàqu kooram ba koor gi jeex noone la loolee di defee si boppam li nga xam ne mooy ragal yàlla subhanahu wa seytaane sori ko du am si moom yoon comme noone mu ko nekkee woon si weeru koor kon loolu moo di tegtal ci ponk bu màgg bi di koor kadalika ay tegtal yu bari e, ñëw na si e, sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di saxal ponk bu màgg bi ak di ko jàngale juróomeeli ponk ba di lii nga xam ne mooy aji màkka borom téere bi indi si tegtal fi yàlla subhanahu wa taala walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila ne yàlla subhanahu wa taala moo warlul moo moom yàlla subhanahu wa taala moom la ñuy li nga xam ne mooy aj aj nag buñ ko waxee liñ ci jublu mooy jublu fële nga xam ne moom mooy màkka di néegu yàlla ba subhanahu wa taala ak la ko wër si ay barab yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala yoonal na fa ay jaamu yuñ ko fay jaamu nit ki jóg ngir jublu lool ndax xaj ah, ah, buñ ko waxee si baati arab Euh, la muy firi mooy alqasd si wàllu làmmiñu arab mooy jublu jublu nga si dara waaye jublu lan si wàllu sharia dañ naan qasdul kaaba al musharrafa wal mashaa'ir al muqaddasa fi waqtin maxsuus si jamono joo xam ne juñ ko jagleel la nga jublu ji jëm foofu li adaai ibadatin maxsuusa ngir joxe fay jaamu yàlla yu jagleel foofe wa hiya manasik alxaj comme ni ko euh, cheikhna cheikh Saalih xafidahu llahu taala taarifee ba na kon loolee moo di aj yàlla subhanahu taala wutal ko jamono euh, mu am ay barab yoo xam ne kii aj faw dafay dem ngir taxawal jaamu yàlla ju màgg ji yàlla nag def ko farata farataal ko ci nit ñi comme ni mu ko waxee fii ala naasi ala naasi maanaam lu war la ci kaw nit ñi te kan moo ko moom lillah moo tax mu ne walillahi ala naasi lan xijjul beyt mooy aji eh, néegam ba di fële eh, sa kaaba waaye kan la war man istataa ilayhi sabila si ku ko amal aw kan kan moo ko amal aw yoon mooy ki nga xam ne ñaari mbir yi daje na si yow muy man-man ci wàllu aw yaram wér nit ki mën am na ak wér mën naa dem màkka yaramam may na ko ko mën na faa yegg mën na faa yegg moo xam dafay dox dem fa wala dafay yéeg waaye am na lu ko yeggale ba màkka ci wér gi yaramam ñaareel ba mooy al istitaa al maliya maanaam am man-man si wàllu alal si wàllu lu koy yóbbu ak loo xam ne moom mooy yóbbalam si yoon wa ba muy ñibbisi waaye ak la muy bàyyee li nga xam ne mooy njabootam si wàllu dund ba keroog muy ñibbisi comme ni ko Cheikh Saleh Ibn Fawzan xafidahu euh, llahu taala di waxee ne man-man ngi si wàllu alal dafay ëmb moo xam waruwaay la ak lépp lu ko yeggale ak yóbbal bu muy yóbbu ba keroog muy ñibbisi waaye la muy bàyyee njabootam ña nga xam ne moo leen di dundal te loolee war si moom faww loolee it eh, man-man bi def siy dugg mu mën leen a bàyyee lu ñuy dundee ba keroog mu ñëw képp ki nga xam ne nii loole am na ko eh, mbir mi dafay daal di war sa kaw comme ni ko saxaaba yi firee li nga xam ne al istitaa mooy azzaadu war raaxila azzaadu war raaxila azzaad mooy yóbbal waaye ar raaxila mooy warwaay ki nga xam ne am na lu ko yóbbu makka ba mu yegg kon daal nit ki bu fekkee loole dajale si moom mbir mi nekk na farata si kawam bu fekkee kàttan nga newu fa maanaam nit ki dafa feebar feebar boo xam ne mënuta dem makka kookee aj waru ko kazalika nit ki bu fekkee dafa ñàkk ba amul lu ko yóbbu waaye amul lu mu bàyyee aw njabootam ba keroog muy ñibbisi si ak yóbbal kookee it aj waru ko waaye ki aj war mooy ki am eh, man-man gi ci ñaari côté yooyee bu boobaa war naa gaawtu dem joxe ko comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi waxee ne baadiru bilxajji wal umra fa inna ahadakum la yadri ma yaaridu la gaaw tuleen dem aji ak umra ndax kenn si yéen xamul lu koy gaaral mbir mi fa mu nekkee si yow farata danga ko war a gaaw a dem jooxee ndax xamoo lu la mën a gaaral si feebar mbaa ndax ki nga xam ne ni mën na ko am na kàttan gi si def ko waaye mu yéexal ko defu ko ba faatu kookee def na lu rëy ndax mënoon na ko amoon na ko waaye dafa sàggan ba faatu te defu ko loole di lu màgg di lu rëy loola tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xiirtal si ñu gaatu dem jooxee ko ndax ponk la te mooy ponk bi nga xam ne benn yoon la ko yàlla warlul ci jaam bi ci dundam ndax Euh, comme niñ ko junjee léegi si la la muy waral si nit ki am ko si alal ak kàttan ak man-man ak coono ya sa nekk yàlla subhanahu wa def ko muy farata benn yoon si dundu nit ki dafa ko muy farata soo xam ne comme ni julli nekkee farata bis bu nekk juróomi yoon wala koor ni mu nekkee farata si benn yoon si at mi at mu ne bu weer woowu ñëwee di weeru koor woor ko dafay daal di war waaye aj farata la benn yoon si dund nit ki moom ak umra comme ni ko xadiis yi ñëwee di dëggal nit ki ci dundam war naa aj benn yoon war naa umra benn yoon ci nga xam ne amal na ko kàttan amal na ko man-man loolee moo di moo di dëgg nit ki waru saa sàggan dafa war a xam ne lii ponk lislaam la loolu tax yàlla subhanahu wa taala wax si jeexantalu aaya boobee wa man kafara fa inna allaha ganiyun an ilaalamin ana na ki nga xam ne moom moo weddi cheikh saalih nee na dalilun ala anna man imtana an ilxajj wa huwa yaqdir wa lam yaxujj fa innahu kaafir لأن الله قال ومن كفر أي أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر قد يكون كفرا أصغر ومن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر yàlla li mu tijjee aaya boobee ne ku weddi nag ku weddi na yëg ne yàlla subhanahu wa taala ku woomal la yàlla ku ku woomal la soxlawul lenn mbindeef yi Cheikh Saalih dafay wax ne loolee dafay tegtal ne ki bàyyi aj te man ko loolu dafay wane ne dafa weddi weddi googee nag yenn saa saay dina nekk weddi gu mag gi di kéefër gi génne boppam eh, boroomam si diine wal iyaazu billah yenn saay dina nekk kéefër gu ndaw gi muy mooy yàlla gu mag kañ la maanaam ki nga xam ne dafay weddi ne aj ponk la nit ñi nga xam ne dañuy weddi ne aj màkka ponk la te ñu ñuy woote woo ak njullit naan ay jullit lañ ba pare di sikk sàkka si ponk bu mag wii di lislaam wala di ko weddi ne ponk la si diine bal am ay aw aw nit ñuy taxaw di ko saboote ngay dégg ñuy wax ay wax yu doy waar ci naan góor guy woddoog ah di dawaka def nangam di saboote ponk bu mag bi waliyaadu billah loole moom dafay génne boromam si diine ndax weddi weddi ponk la si lislaam loolee moom kufru akbar la wedd gu mag la waliyaadu billah amma ki nga xam ne nag moom gëm na ne aj màkka ponk la da koy saxalit ne ponk la lu ñu war a def la waaye càggante moo ko jàpp ak tayal ba teelu eh, dem defiw ko joxewu ko ba faatu kookee wedd na wedd gu gu ndaw gi muy bàkkaar bu mag génnul ci diine naam waaye def na bàkkaar bu mag mu di kufru asgar ndax saggan na ba joxewul ponk bu màgg bi te mënoon na ko amoon na ko waaye càggante ak tayal moo ko dugg waliyaadu billah ba joxewul ponk boobee loola tax euh, euh, mbokki jullit yi euh, ponk yi nii di ponk lislaam jullit bi daf ko war a xam comme nii ñu tuddee ay tegtalam ci téere borom bi subhanahu wa ak njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullit bi xam ko xam ko nam ko war a xamee waaye taxawee ponk yi na nam ko war a taxawee xam ne yi ñooy keno lislaam ñoom ñoo téye lislaam ñu war xam mu bokk bu baax mu bokk si li jiitu si xam gi muy xam diineem masala mu mag mi nga xam ne dees na ko laaj ci bàmmeelam lan moo doon sa diine comme nañ ko junjee woon diine joojee dafa séddale ko si ñetti martaba martaba ba sa jiitu war a sax mooy xam gi muy xam diineem jullit bi war a xam diineem sa nam ko war a xamee waaye ponk yii lépp loo xam ne nii war na ko saa xam lu loo xam ne war na ko da ko war a xam nam ko war a xamee taxawee ko nam ko war a taxawee ndax loolee moo jiitu si xam gi muy xam diineem buñ sa jógee dinañ jàll si ñaareelu martaba gi di lii nga xam ne mooy al iman ak i ponkam kadalika ak ñetteelu martaba ba di lii di al ihsaan ak ponkam bu si nekk ay tegtalam si téere borom bi subhanahu wa taala ak njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain